objectivement que euh, si tout n'est pas parfait il eu beaucoup d'évolution en quelques années ñu ngi liggéey nag coow nag il faut que mu am Sénégal dafa am démocratie dafa am lu ñuy naan liberté d'expression il faut que les gens s'expriment mënoo fi ne nit ki du wax euh, na wax lu ànd ak euh, yoon bañ a tooñ bañ wax lu ñaaw et puis wax day rafet donc di wax dëgg aussi c' est ça qui est important. Mhm. c' est pourquoi Dakar Dem Dikk moom syndicalisme dafa am doole dañuy wax seen kii di àq yelleefu salarié yi parce que c' est ça qui est le syndicalisme ci droit du travail li ko def def ko ci code du travail bu fekkee seen carrière la seen santé mooy IPM seen salaire seen prime yooyu yëpp. licenciement yi est-ce que loolu bokk na ci liberté d'expression. vous savez gis nga gis nga. entreprise. Euh, c' est pourquoi bokk ci code du travail dañu ci bind licenciement bind ci embauche. Eh oui, c'est dans le code du travail. Licenciement n'est pas en dehors du code du travail. Ça ce que la raison lu tax moom moo tax waaw loolu laa voilà donc moi je pense que euh, j'ai quand même euh, depuis six ans le président de la république mu ma def confiance teg ma Dakar Dem Dikk ba ma fa ñëwee dégg ngeen avocat la lay doy si transport mais yàlla moo xam def na la muy def liggéey nañ ci si liggéey lañ dëkk les résultats sont là bu fekkee tamit nit mi nga am droit am di exprimer wu muy un syndicaliste da koy exercer jusqu'à ce qui est permis ce n'est pas parce que tout est permis que rien n'est défendu dans toute démocratie et il y a des bu fekkee ne ñëw nga taxaw le moo vilipendé xam nga am na ñu ngi ko créé les syndicalistes le ñëw wax loo xam ne amul loi bi ne ci texte yi ci règlement intérieur mooy constitution Dakar Dem Dikk prouver ko mënoo ko prouver nga ne dama doon farce rek dama doon diffamer mais dañu prévoir un texte qui di en cas de diffamation lii moo ciy dal. xam naa nag Sénégal mais li tax mu bëri coow Dakar Dem Dikk coow li dafa bëri ci entreprise bi dañu koy dégg ci presse bi syndicaliste yi daanaka kenn mënu koo wàññi. nañu nañu sant yàlla depuis six ans parce que balaa ma fiy ñëw ba ñu may confier kër gi parce que dañu ma ko confier mënul woon toog trois mois te amul grève arrêté réseau bi mais ça fait juróom benn at ngi nii. Hmm. amul sax benn jour de grève parce que waxante dëgg dafa am parce que président Macky Sall le gouvernement du Sénégal dañoo jox ay moyens pour ñu am na yoo xam ñoom am nañ ko am na ñoo xam ñi ngi si dans le privé di def même liggéey ci transport amuñu sax le tiers de leur salaire loolu tamit ni nga ko wax sénégalais les yeux dans les yeux ku ci liggéey sa liggéey am sa liggéey jàpp ko ko fonk ko bu fekkee am nga loo revendiquer jaaral ko ci yoon mhm. man sama buntu tëjul je descends toujours à 22 heures et Dieu m'est témoin que tous les jours que je fais les mhm. cinq jours il mhm. y a cinq syndicats bu ah loo xam ne mën nañu ko waxtaanee ñu def ko mais bunt bu ubbeeku ñi ñu jaar ci fenêtre bi di def leneen wala di diffamer mais c'est sûr que à un moment à un autre mm-hmm. on appliquera le texte mm-hmm. c'est pas nag d'être trop alors nga jóge ci Dakar dem dikk ñuy wax Sénégal dem dikk